copier tubaab bi te ñun ñu tënk ñu ci code code de la famille kon loolu daf may jaaxal parce que li ngay wax nii góor moo war a mooy le chef de famille moom mooy war a jël en charge dépenses yi gën a important ci kër gi loolu du ñun c'est le code de la famille te code de la famille bu leen fàtte ne c'était c'est un code consensuel c'est-à-dire que dañu waxtaan ba juboo waxtaan bi ñan la les les autorités étatiques les religieux les autorités coutumières jigéen ñi amuñ ci woon sax impact. foofu ça ne vous kon xam nga ko góor mooy kilifa moo war a moo war a. yor dépense kër gi foofu ça ne vous dérange pas. Euh, ça nous lu tax nga ne saanu nous dérange pas pourtant dañu ne góor mooy kilifa moo war a yor kër gi waaye góor ñi jigéen ñi lu ñuy def ci kër gi bon góor ñi ëppale wuñ leen lu ñuy def ci kër gi mais problème bi mooy yow mënoo juuf sa doom. te léegi yaa ngi naan dangay laaj garde ñu nangul la ko non non garde bi c'est le juge juge bi mooy joxe la garde léegi nag nu muy joxe la garde mooy day xool fan la intére supérieur de l'enfant nekk te loolu da koy saytu du toog rek def ko donc am na ñi ñuy woowee AEMO ñu nekk ci tribunaux yi donc ci loolu la ñuy liggéey bu ñu xëccoo garde juge bi da koy yebal mu def enquête ci à l'issue de cette enquête foofu lay xamee kan la war a jox doom ji ko defee nag buñ ko joxee buñ ko joxee ku ji ku jigéen ki donc faaw papa ji aussi dafa jur doom di daf ko waroon dundal daf ko waroon euh, toppatoo bu feebaree daf ko war a faj loolu mënu ko wàcc li mu doon def ci jigéen ku jigéen ki bu divorce amee da koy wàcc mais pension alimentaire bi c'est pas pour la femme. c'est souvent pension bi li ñu lay laaj pension alimentaire loolu yor na kër te loolu ëpp na sax parfois salaire. ba day préféré ku góor ki des fois mu bàyyi ba léegi rek damay dama lay wax ne. du ku jigéen ki mooy ne lii laa bëgg rek. ci pension alimentaire loolu mooy. am non non non mooy proposé mais nekkul ne lu mu bëgg rek loolu mooy. am le juge balaa muy joxe pension alimentaire ku jigéen ki bu waxee day xool dina xool tenir compte paramètres yu bëri dina xool kuy góor ki lan lay gañe parce que ku jigéen ki bu ñëwee ne cinquante mille lay laaj pension alimentaire ku góor ki di gagné soixante quinze mille xam nga ne juge bi du accepte loolu donc képp ku ñu dagg pension alimentaire dañuy juge bi xool na ba xam ne mën na ko. mu soog ko ko dagg donc kon man je serais pas d'accord le fait que nga naan dañuy toppandoo tubaab yi mënul nekk ñun toppandoo ñu tubaab yi déjà sax code bi nga xamante ne moom moo ñu régir bañ koy defar jigéen ñi bokkuñu dañ leen tegee woon ak de côté côté bien sûr def seen code moo tax yaa a de discrimination def seen code de la famille teg mais yow nan nga jàngatee Euh, ku góor ki buy voyage ak doomam wala bu bëggee génn ak doomam moom ñor na leen de non du question voyage mais dama la bëgg xamal ne gis nga autorité parentale non Fall ñoom voyage dafa nar a neex ba nit ñi dootuñu sax soxla voyage ba yóbbu njaboot gi parce que problème autorité parentale ci bu voyage taxawee lay gën a fës ci lay gën a metti parce que dangay ngay bëgg a dem fenn bëgg a yóbbu sa doom ñu lay naan donc ani autorisation bi ndax param pourtant ku jig ku góor ki doom bi du doomam kese mais bu fekkee moom laa moo am la garde de l'enfant buy dem soxlawul autorisation. fi ñaata góor ñu am la garde de l'enfant. am am pagay kooku soxlawul la garde kii soxlawul autorisation mais ku jigéen ki daf ko soxla dangay gis góor ñoo xam ne nag dañ ko utiliser comme arme di ko xeexee donc xaaral man fi ma koy xaar soriwul lii ak lii dañuy dem sax ba ci euh, ni ñu koy utiliser ci arme boobu ñu dem ba ci xeexaale xale bi. parce que par exemple tey soo nekkee. soo nekkee koo xamante ne. nga nekk doom une relation boo nekkee doom mën nga am bac par exemple boo amee bac avant majorité ñu may la bourse xam nga mënoo génn te joxuñ la autorisation sa papa il faut bu autoriser la. am na góor ñoo xam ne dañuy dem comme lu ñuy naan divorcé yaay divorcé doom dañuy dem ba bañ lool. donc daal si je comprends bien sa autorisation ñu jàng si je ni kon divorce dafa.